d'abord je lance un appel à tous les Africains le vrai nom de la CDAO c'est CDU EAO F CEDEAO son vrai nom c'est le corps diplomatique de l'Union des États de l'Afrique occidentale française c'était ça le vrai nom de la CEDEAO corps diplomatique de l'Union des États de l'Afrique occidentale française C'est raison pour laquelle beaucoup de pays beaucoup de pays n'en faisaient pas partie au départ Là, c'est CDAO, hier, ils sont venus au Sénégal. Là, ils sont allés au Niger direct. Mais c'est la délégation, pas les dirigeants imbéciles. Et pourtant, c'est eux qui avaient dit qu'ils allaient attaquer. Sonko, il y a un problème. Je me suis parce que Sonko, il y a un problème. J'étais un asthmatique. Nous, tous, nous avons fait un barbeau moom depuis vendredi mu ngi ci weeru kooram nanguwul kii nii merci beaucoup général Akhenaton comme maay dégg léegi booy wona mi ne ma Akhenaton mu ngi live ne Sonko il est malade gars yi gravement malade ndax depuis vendredi lekkoo naanoo ngay asthmatique depuis sànq maa ngi négocier médecins militaires pour nous une solution au moins ñom ñu nangu ñu jox ko ay pompe aérosolam wala ay ventolinam parce que man dama dekk nak ay dama dekk ak ay asthmatique fekkee asthme ku mu rey une jeune fille du nom de Bibi waa Géejawaay mën nañ ma sédé dama xëy di sport yi li ma leen wax ni en 2000 xëy di sport yi romb papa muy xaar chauffeur bobu suma ko waxoon ma évacuer doomam mu dem hôpital doomam sauvé mais comme yaaji ji ak ma. baay bi bàyyi noonu nii la doom ji décédé biir këram ndax lan asma gars yi foog ñu génnee Sonko de Macky nee na médecin moom du ko fekk biir hôpital ay garabam du fa dugg sans ordonnance Sonko nee na médecin administration bi moom tam du ko laal parce que il a ses médecins personnels moom moo xam pour lan médecin administration bi du ko laal. njàqare jeex na jooy jeex na songu xeex dajaloo centre ville yéen ñi nekk dakaar ceinture Dakar ba Grand Yoff ngir yàlla dem leen centre ville dem leen centre ville jëli ji dëkk bi. Tëngéej Bargny Sébikotane cinquante Thiès yéen ñëpp maa leen di ñaan wàcc leen ñëw prison bu Sébikotane quel que soit le prix à payer leen prison bu Sébikotane quitte à ce que ngeen fanaan fa avec ou sans violence loo leen bëgg ñu financé ko loo leen soxla ci xaalis ñu ñu yónnee leen ko tout de suite yéen waa Thiès na fépp tàkkandoo ñii ñu ngi bloqué ay garabu waa ji soo moytuwul nag maa leen koy waxaat bu ñu xeexul ba vendredi matin ministre bi waroon na jël noo état de siège état d'urgence lay jël yóbbuñu pour trois ans su boobaa nag dëgg neex yàlla de liñ naan leen am na force yu dugg ci Sénégal ak am na su boobaa combinaison ñun dinañ ko tëgg reyante ñun ñëpp wàcc ci Afrique dugg si ñun ñëpp daañu tëgg si wàcc si Afrique dugg si Sénégal par force jëlee fa Macky Sall ak ki ko faral ak ki ko faral yéen xam on va tuer monde fu mu yem neex gars yi Macky day sacrifier Ousmane Sonko bés bu ñu Macky yóbboo état de siège jël Ousmane Sonko transféré ko ak maladie bi asman bi mu bañ ko ko recevoir moo tax ñu ñëpp ñuy wax ni pour au moins ñu nangu ay garabam dugg gars yi allons libérer Ousmane Sonko moo gën di topp li ma leen wax doomu double corps injection yi moytu leen genre xale yooyu allons libérer Ousmane Sonko yéen ne leen Ousmane Sonko tey gënal suñu bakkan ndax waruñoo gën gore ay fenkat ay doomi njaaloo ay doom yoo xam ne doomi xaram ay ministre toog fii di wax nu mu leen neexee ñooñu tey ñooy jël Ousmane Sonko tëj ay sàcc ay violeur lépp ñu juñ ko Ousmane Sonko ñu jàppee leen ko ñoom tey ñoom ñoo koy jël tëj ñun ñu toog déedéet Grand Yoff dem leen centre ville ngir yàlla te dinaa leen jox beneen secret xam nga yéen ñi nekk suñuy page bu ñuy live xam nga ñu bari ci Facebook lañ leen jàppee dem leen jëli seen kër tëj leen ñun tam am nañu beneen réseau bu ñu ubbi ñun waa Pastef ñun ñi bu ñuy live gis nga ñu nekk di saaga su suuf bu ñu xasee capturer seen tour noonu dinañ leen jox seen adresse ngeen dem molotov seen lëfal ndey seen biir kër da ngeen di taal seen yaay yi fexe leen ba seen yaay yi ubbi seen série ngeen def si cocktail molotov taal seen lëfal ndey loolu moo leen ci génne patriote boo leen amee fulla yéen a ko mun amal seen bopp jeunesse ngir yàlla génn leen sortez dem leen centre ville dem toj cent mètres boo gis nga centre ville moom mooy xoola soxlaaw ñu nombre bu génn deux jours yi ay groupe de combat la ñu xeexee mais vous avez été extrêmement efficace léegi nag ñun liggéeyal nañ leen ak ay groupe de combat xam nga liggéey nañu ba dégagé terrain bi léegi yéen la population s'il vous plaît mag ndaw góor jigéen yéen ñëpp la ñuy ñaan yéen ñëpp la ñuy ñaan génn leen dox vers centre ville Macky Sall bu mu jëlaat réew mi ngir jëmmi Serigne Touba ñu ngi naan deux mille vingt six Macky Sall nag yóbbuwaat nañu beneen ak gars yi fi may waxee nii. Je ne parle pas au peuple camerounais. depuis 40 ans, ils ont quelqu'un. Je ne parle pas aux Ivoiriens. Il n'y a pas de militaires. Il y a des marionnettes. Je ne parle pas à ces peuples, ni aux Gabonais. Je ne les parle pas. Je parle au peuple malien, au Burkinabé, Niger, Mauritanie. Surtout vous les Algériens, je vous lance un appel solennel. Si Macky Sall force tout ce qui est français, sénégalais en Algérie, pété. S'il vous plaît, Algériens. Nous, on supporte le Mali, nous, on supporte l'Afrique. Mais nos gouvernants du système, ils ne veulent pas de l'Afrique. C'est pour ça qu'il faut les éliminer, quel que soit le prix à payer. Vous, en Afrique, vous devez brûler des drapeaux maintenant, le drapeau de tous les maîtres esclaves comme Macky Sall, Alsan Water, Patrick Talon, le président nigérien, le nouveau bâtard là, le nouveau bâtard africain, je ne connais même pas son nom, j'ai pas besoin. Avec le bâtard comorien, surtout au Comores, il n'y a pas d'homme qui existe au Comores. Il y a partout des hommes chez nous, chez les Noirs, sauf au Comores ce bâtard-là qui se permet de ne pas prendre des photos. Pourtant, lui, il a pris le pouvoir par coup d'État. Lui, c'est un ex-général de l'armée. C'est un vrai bâtard, le président comorien. Mais félicitations, gouvernement malien et peuple malien. Ce qui reste, c'est d'agir et de réagir, vous les Sénégalais de l'extérieur. Là où vous devez brûler le drapeau de la France, il faut associer les autres drapeaux. Ce n'est pas pour lutter contre le peuple sénégalais, mais contre les néocolons, ces fils de pute, ces bâtards comme Macky Sall, comme Alsan Ouattara, comme les Patrick Talon, ces bâtards de l'Afrique, ces gens qui sont comme Denis Sassinguessou, comme Paul Biya, ces bâtards qui sont en train de nous sucer. C'est eux qu'il faut détruire à travers cette révolution. Et cette révolution-là, elle est déjà debout, elle est déjà sur place. À travers Assimi Goïta, que Macky Sall traite de force occulte. Sénégalais, il faut que nous Ousmane Sonko. Non. Les forces occultes dont Macky vous parle, vous savez c'est qui C'est le gouvernement malien. Les forces occultes dont Macky vous parle, les financements étrangers dont Macky vous parle, c'est le gouvernement malien. Et c'est ça qu'il était le régler en Russie. Et il a mal parlé, parce qu'il a mal compris ce qu'il devait régler. Ce n'était pas une affaire personnelle parce que le Sénégal ne l'appartient pas. Les forces étrangères qui supportent Ousmane Sonko, tout ou tard, le ministre va le dire ou le procureur va le dire. C'est Hachimi Goïta, rien d'autre. Que lui, que Macky ose attaquer Hachimi Goïta en tant que président et que c'est lui qui veut déstabiliser le Sénégal. Et vous aurez de ces informations. Parce que Sonko est l'ami à Hachimi Goïta parce que IBE est l'ami à Assimi Il y a un problème. Macky Sall mu ñuy jaxase ak àdduna et y aura qu'on le veuille ou non Sénégal si Sonko vit ou si son Sonko meurt Macky ne va pas terminer son mandat quel que soit le prix à payer Nous, ne pouvons pas tay journée nationale la semaine bi journée Thiès tengé, Bargny sécuriser les maa leen di wax sécuriser tout tout le monde a à Sébikotane la gendarmerie ne va pas vous contenir à Dakar les militaires que vous voyez là-bas devant les Auchan et tout devant les Auchan et tout j'ai signe je persiste les militaires s'ils essaient de vous interposer devant vous mettez dans leur véhicule des cocktails Molotov. S'ils osent, ils n'ont qu'à tirer. Qui ose gagne, qui perd, paix. Ils ne vont jamais tirer sur vous. Jamais. Les enquêtes sont déjà là-bas, les enquêtes sont déjà en cours. Je Sall ce ko neex na def Toutes les neex na wax toj leen lëfal ndeyam waa CPI jël ko yóbbaale coow li jeex. xeex bi moyen lañ moyen numéro yi ngeen mooy yónnee yëpp démb <laughs> tenc nañ ko jàpp nañ benn booy bi mais génne naa ko fi mu nekk booy yi ñu jàpp yëpp ñun mun nañ leen génne amul problème nañ ko teel a yëg rek jóg nag ngir Sonko mën faju ñu génne ko ci kaso bi ñoom buñ ko yóbboo faj ko luñ ko mënti pompe buñ ko reyee yéen la ñun la Sonko nangul docteur administration laal ko te Sonko nak waxtan wax deug neex yalla yeen jeunesse bi yéenay docteur am comme ni ngeen nekké avocat comme ni ngeen nekké ay garde corps am te lii yëpp da ngeen signé won ak mom pacte mustapha Diakhaté nak actuellement celui qui dirige les opérations ba Farba Ngom am fitu menacé Macky Sall ni len ko génn ñom ci projet bi sa bakken da ciy dess ñom ñu demoon signé sen pacte Nous ci pacte lañ pacte. pour sacrifier Ousmane Sonko sacrifier toute l'Afrique ci pacte lañ nek pour dem 2026, yok ba 2027. parce que j'ai su que baril pétrole dañ koy repousser que nekkatul décembre 2024 le premier qui bi di génn Macky Sall pour dem élection actuellement rien n'est prêt pour ngeen dem élection n'a len ko passé rien n'est prêt pour ngeen dem élection amagu leen fichier électoral yi war nañ ci dugal diw war nañ ci génnee diw rien n'est prêt 2026 ngeen jëm bo leen def def loo nag Macky Sall yóbbu leen 2027 2028 bu nim ko nexé def ñu comme Denis Sassou Nguesso Denis Sassou Nguesso ni la togué de état d'urgence la togué ba tay ba sànq bu suba Paul Biya état d'urgence la togué déclarer la guerre au sud c'est les Allemands comme nous Macky Sall def ni déclarer la guerre au sud commencé xeex ak ñun déclarer état de siège point final day tok militaire bu fi nangu gendarme bu fi nangu état de siège wala couvre-feu di ngeen gis loo leen mosul gis Sénégal ay militaires yu ñuy taal seen ndey guddi ance gorog ñëpp laa si yemale mag ak raq ku ci sol toni maay mag yi bàyyi maay raq yi taal leen lëfal ndeyam balaa muy xat taal leen cottu ndeyam balaa muy xat amatul ay calcul may magu diw may papa diw taal leen ndayam balaa muy xat sonko bum ñu gën a gore yéen jigéen ñi nag ay soxnaax sonko gën nañu jigéenu Sénégal ñu bëri malgré am na ñuy participer ndax man jigéen ñaay gën a participer ci combat bi c'est ça que senti mais ay soxnaam gën nañ jigéen ñu bëri tey boo leen wàccoon ci terrain bi marche bu takkarnaase ba takkarnaase gendarme yi duñ tiire yéen magi Pastef yeeg ndaw yi Pastef yeeg yéen ñëpp daañu leen jël door si kaso bi balaa boobu nag jël leen seen i kàkk ku nekk jël say responsabilité ngeen wàcc si tali bi xeex lillaay waru suuli wàcc leen xeex ngir jëmmi Serigne Bamba wàcc leen xeex ñu jëlee fi Macky doome xaram sàll mii ak Moustapha Diakhaté bu ubbi la fal jiite te nañu rey ñëpp ndax moom xam na ne du dem CPI Touba lay daw làqatu après moment bi ñoom seen CPI ci Touba lañ ko teg su boobaa tam ñu toj nday Touba génne leen ñun jugé leen suñu bopp ba xam kan moo si mun dara o va voir. gars yi ñu ngi réunion leneen ci biir parce que ñu ngi dem Touba jël ba fàllu base avancée tëj Touba autorité yi dem làqatu ñàngul yéen jeunesse loo leen romb na tàkk. loo leen romb na dëgg ndeyam moment bii Cheikh Tidiane si li ma leen wax rek nee na bu yàqu jotee bu nguur ne la kaa ñu yàq ba yàqu jot lu waay yàq na ko xeeb ku mu waay mën a yàq nu yàq bi mën a ñaawee lu waay mën na katta ndeyam nan ci katt ndeyam bàyyi leen xaar bi xaar bi c'est trop ñu xeexal nañ leen deux jours yi dégagé nañ terrain bi léegi nag c'est à la population de sortir parce que waa ji jaaxle na mu ngi si suffoqué lekkul bëgg di dundee ay butéelu Evian yi ndaw di naan di toog ci ko wooroon depuis vendredi ñu taxañ taxañe ko depuis boobu calculer leen yéen ñëpp kan moo ci sañ woor depuis vendredi ndogu woo lekk sax banaana yéen ñëpp ba pare am asthme mënutoo respirer nawet bi bu tawee ba pare bu suuf si kiiwee nii bu suuf si buy bi nii dafay diis ça j'ai des enfants asthmatiques xam naa lu may daj nawet ma nee naa dama gis asma ko mu rey léegi nag dem leen jëli Sonko avant qu'il ne soit trop te ñeneen ñu yéen waa Dakar dem leen wàccee ndey Macky avant qu'il ne soit trop tard waa jawbe nag commencé nañ démb gis naa taal nañ ndey fépp tey tàkkaat na nii Ziguinchor commencé nañ depuis sànq liggéey bi Casamance moom job lañ ko def xëy 8 heures comme école dóor ba midi añ ñëwaat dóor zik moom école lañ ko def job comme zone démb gis naa gars yi wax ci guddi gi ngeen xaw a calmer mais liñ leen wax de bo leen rayé suñu dom ñu rey nday seen dom c'est simple légui fa la xex bi tollu lu way mën yàq na ko yàq gars leen ci combat bi ñu financer boy man chaque jour man bu may dem damay ñëw ak xaaliss tour bi lama ma gars yi ne naay moytu tour yi chaque jour bu may ki damay financer luma man bu dee fii ngeen France dama koy envoyer na xaalis ñëw samay boy yi may envoyé mënu ma wax seen tur am na numéro bu ma joxe Sénégal ma gis xoola beer yi woo kook ñëpp eh, man man maa moom numéro boobu mu ngi fii 517 29 09 dem leen Sonatel liir Baye Ndiaye moo fa nekk Baye Ndiaye Esfal moo fa nekk Njaga Yaaram <laughs> maa fa nekk keneen moomu ko man maay borom mu ngi fii maa koy transmettre ci même numéro bi yéen ministres yi yéen ñëpp yor ngeen benn numéro ñetti opérateur yi bokkul noo agent de terrain yëpp yor nañu opérateur da ngay yoré man dama yor ben numéro ma yor ko Orange Expresso Tigo c'est ben numéro la mais lolu ça dépend ñukay am Sénégal lolu c'est le système nak c'est mon numéro la gars inquiétez-vous gars 77 517 2909 bi lu len neex yónnee len Wave Western Orange Money mu yéen mu woote naan eh, père bay mo mo yone xana xama man nga don waxal yawit it commissariat point E dem len jëli wa commissariat point E de tey suba booy indiqué yëpp commencé nañ daw yéen géejawaay dinaa leen paas liste indicateur yëpp liste indicateur yëpp xam nañu règle bi géejawaay waaw ñun dinañ attaque mais du tey xam nañu règle bi la jeunesse allez sortir Sonko de la où il avant qu'il ne soit trop maa ngi waxaat lekkul naanul il en danger mu ngi suffoqué complètement man du ma de si suba laa ko yëg ma ne noo gars yi dañuy xumbal ak anu ton wax ko ma woote waat pénitencier bu ñu ne ma ah kenn amul ak accès néegam heureusement ki ma jot wax naa leen ko homme de tenue yi ñëpp duñu ay doomeraam am na si ay nit ba tey moo ma ne grand ma ne mu ne ma kii lance un appel normal life nii dégg xam naa dinañ dàkkaat pénitencier yi nekk fële yëpp si bi kotaan yëpp mais yéen a xam Nous avons lancé un appel solennel à la jeunesse Nous leen Sonko ku il se porte bien il va très mal Nous avons ngi que nangu ay garabam autorisation pour ay garabam sans ordonnance Nous tam une tax sànq ma une ordonnance buntu peut-être que nous nangu ko ñu jëli ordonnance ñu que nous médecin contrôlé Sonko pour xam état am Sonko nee na médecin bu nekk biir Sébikotane du ko contrôler ndax il a ses médecins personnels nanguwuñu garabam dugg mu ngi si sifoke lekkul naanul yéen sénégalais yaa ngi ni seetaan te Macky Sall boo moytul moo koy jël yóbbu ko pavillon spécial fajal ko boppam par force billahi wallahi bu ñu fajee Ousmane Sonko ñoom nee naa li ñu soxla si moom bu ñu ko amoon nii dañ koy bàyyi léegi léegi mu dem te xam ne après du leen amal njëriñ ndax du fekkee deux mille vingt neuf même su faloo gars yi loolu maa leen koy wax di waxaat gars yi seen problème bi nekkul tëj Ousmane Sonko xam nga fu ñu toll nii pour muy clair nii nii nii nii nii nii waxtaan côté bi gis naa ko booy gis naa ko gis naa ko boobu du woon pour tey bàyyil boobu paas xam nga fu ñu toll nii ñoom. Hmm? bu dëkk bi naree ñàng ba ñàng nanguñu état siège nanguñu dara imaam ndaw avertir naa leen Idrissa Seck gën na toj la fa ndeyam Sénégal ala imaam ndaw la leen wax ñu def Sonko isolé ko dóor ko liñ koy dóor bàyyi ko mu génn c'est un asthmatique rey ko dafay gaaw comme ndox avertir naa leen Sonko c'est un asthmatique pompe létale yi bu ci jëlee li ci imaam ndaw jël genn wàll gi Sonko ndaw Sonko antanu ko asthmatique le builder, li Imam Ndaw jël gaz létal genn le gi Sonko antunuko le genn wàll gi Sonko antunuko c'est un asthmatique il est en train de souffrir dans la prison de Sébikotane pénitencier yaa ma wax pour que je vous lance un appel solennel la jeunesse ngeen génn dem libérer wadi ji yéen waa Thiès Sébikotane Tëngéej sorte ngir yalla sorte ñu jeexal combat bi li laay war a ngi jëm Serigne Touba yenn rek lañu yakkar yenn le Sonko yakkar y'en ba homme de tenue y'en la ñuy ba ne ma grand defal appel pour jeunesse bi gars y'en lañu yakar ñuy yaakaar yaakaaruñu keneen ku dul sortez la jeunesse vous avez déjà gagné xam nga lan mo ci dess ni ay question du primeur waxoon naa ko course bi 10000 000 mètres la won daw nañu arrivé moñu dessé athlétisme laay def xam naa lu may wax arrivé sa tànk yi day dis gan sa acide lactique yéeg doto mu dem mais da ngay diree ko jom dévouement détermination ñi ñuy deug nday yu Macky Sall génne ko palais bi mu jeex Militaire géré ñu dem ci transition loolu la soxla faites vite Sonko sa vie est en danger faites vite avant que Macky di ñu dóor di évacuer diko éliminer faites vite faites vite avant Macky di jël confiance li laay war faites vite sortez sortez en masse sortez démb ngañ dem Touré wax na leen ko sortez man bi may def live naan Sonko di côté Ngagne Demba Touré boobu Ngagne Demba Touré du woon responsable des jeunesses mais la may gis si politique ñoom duñ ko gis xëy na après bi ñu commencé di wax ak man waxtaanu suuf on s'est compris Ngagne Demba Touré taxaw na sortez on mène ce combat jeex na combat bi mat na ba pare sorte Ngagne Demba moo nekk ci yoon ci désobéissance civique la nekk yéen keneen kuñ ci convoqué defal comme Ngagne Demba Touré disparaît bul wuy ji di def say live di dëgg seen la fa Maimouna Bousso yow doo am convocation duñ lay jël si direct codé nañ ma ko ba pare mais c'est pas grave sa nom de jël si sax tu vas assumer patriote nga point final on va gérer.